mbokk yi safo Dakar Media TV dal leen ak jàmm ci seen actualité du jour ñu dooree ko ak ki nga xamante ni mooy Ameth moom moomu le nag ginnaaw kàddu yi nga xamante ni génn woon na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy doomu Papa Thione boobu di Wally Ballago Seck si loolu nag bëree bëree bëri ñoo xamante ni ay jege ñaare waal waali la ñu daal dinañu koy eh, ŋàññi waral nag eh, tey jii nii ci ajuma ji kii di Ameth waroon na def li nga xamante ni mooy conférence de presse fas yéene jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni taskatu xibaar ngir leeral wax jooju nga xamante ni eh, dina koy koy wax jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy waali Waly Balago Seck waaye nag ci ay xibaar yoo xamante ni daal dinay tukkee fële ci ITV ndax tamit kii di Ameth Thiou moo fa def euh, ab euh, direct woote fa directement ngir xam le ni nag boobule confrance de presse daf koy daal di annulé ndax nag euh, fas yéenewul jàkkaarloog benn yoon ñi nga xamante ñooy sénégalais yi di wax li nga xamante ni moom moom la bëggoon a wax ndax da nee na loolu rek gàcce la ci moom waral nag kii di pap pap moom nag nga xamante ni mooy am Thiou mi ngi xam le ni Bercy Kër Massar bi nga xamante ni kii di Waly Ballago Seck defoon na ko fële Kër Massar am na ay kaddu yoo xamante ni kaddu kàddu gaaru waale la jëmale ko ci jëmmam jooju leen ndax waral nag way juróom bu jigéen boobule woo ko téléphone ngi daal di koy xamal ni eh, kii di Wally Ballago Seck li mu def eh, ñaaw na loolu le nag tey tamit eh, métti na yaayam joojule waral nag kii di amet ci woote directement ci émission ba la nekk fële ca ITV te Padros Mbaye di ko présider waral méttu nag mi nga xam ne ne ci appel boobule mu def en direct mi nga xam ne ne daal dinay bàyyi waa Ramdan na définitivement liggéey bi nga xamante na ko def fële ca nga xam ne ni tamit nag ngi ngi jëfal ñëpp di leen gërëm di leen sant ndax tamit uh, nee nañ moom moomu lekk bu ku dégg li nga xamante ni képp ku nekk ramdaam dégg li nga xamante ni moom lay wax mu xam ne kaddu yi dëggu la kaddu yoo xamante ni du benn yoon kaddu yi triché waaye tamit nag nee na bu demee ba xam ne gisatul boppam ci boobu lee uh, groupe uh, nag li waral li gën mooy mu daal di bàyyi bala moo gën a ñaaw ci fàttali nag kii di Ameth Thiou mi ngi doon ànd ak ki nga xamante ni mooy Papa Thione loolu da nag mi ngi toll ci ay ñaar fukki at ci tey jii ginnaaw Papa Thione bu mu génnee àdduna mu dem euh, succédé ki nga xamante ni mooy euh, Waly Balago Seck waaye jamono ji ñu toll dañoo am ay ñagas ñagas ñagas waral nag ay gaaru waale di jógee de partout. conférence de presse bi nga xamante waroon na ko def tey jii janook taskatu xibaar ngir leeral li nga xamante ni moom la waxoon jamono jee ñu weesu ci Waly Ballago Seck Ameth Thiou daal dina koy annulé ba jamono yi ñu jëm si di leen jox dig dajee si kanam incha allah ak yeneen i xibaar jërë ngeen jëf